dafa am benn taalib boo xam ne bii saalum saalum la xoon nee na kooku ñu ngi ko doon wax Serigne Moussa Paate Daraame nee na dafa waxoon Serigne Touba Mbacke na ko bëgg naa ñett de Serigne Touba Mbacke na ko kon de da nga def ñett mu ne ko Serigne bi li ma wax li ma li ma wax loolu léegi maanaam leer na gu ma la ko nga ne léegi maanaam da nga def ñett mu ne ko waaw dama xam ne ne ko waaw leer la ma ko sax waaye dama xam ne yàlla boo bëggee ci moom dara da nga fa def dara waaw mu ne ko kon de Mbacke dinaa la wax li ma bëgg. mu ne ko ah kon de Mbacke dinaa la wax li ma bëgg. mu ne ko bisimilah. mu ne ko bisimilah Moussa Fade. mu ne ko damaa bëgg mu am léegi yàgg fi. mu ne ko damaa bëgg daal yàgg fi lool. sëriñ bi ne ko da nga am njëriñ. sëriñ bi ne ko kon de Moussa da nga am njëriñ. mu ne ko waaw mu ne ko mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko ndax suñu borom dafa wax ne wa amma ma yanfa'u naasa fa yamkutu fil ardi waaw mu ne ko waaw mu ne ko loolu dafa bokk dafa bokk li mu ci wax mu ne léegi maa ko amal njëriñ nee na ko loolu dafa bokk ji li nga xam ne moom la ci suñu borom wax ku amal nit ñi njëriñ ku ne danga fi nekk incha allah. a na Moussa Fall damaa ma dal dina ko Serigne ne kon da nga ut naa si boo xam ne àll kenn ay bokk ba jiwoo ñoom def ko kon nga waxtaan léegi man ak ay bokkam ba jiwoo ak ñoom nga jël sala dugal ne ko loolu yëpp boo ko defee dinaa a am doom yu barkeel. mu ne ko wal baladu tayyibu. yaxruju nabaatuhu. yaxruju nabaatuhu. bi izni rabbihi. ne ko suuf bu fekkee maa baax na. nee na ko suuf xam ne baax na. maanaam jiwoo baax. baax. ba tooy. baax ba it tooy xet. bu saxee baax rek lay def. waaw mu ne ko kon loolu yow loolu laa la digal ci wàllu am ay doom yu baax. kon doom doom yu baax li koy may nit xëy na bari na waaye moom Moussa Fass Dramé route boobu moom la ko Serigne Touba Mbacke mu ne ko kon da ngay def lu amat ci yàlla. mu ne ko kon da ngay def lu amat lu ne rek sëdd ci yàlla subhanahu wa taala. mu ne ko ndax léegi borom kof ndox dafa a dafa war a jaxasoo dafa war a jaxase ak ñi nga borom géej. xam nga ñun suuf suuf mu am am am dafa mel ni maam lépp kooku mu ne ko ndax ñun léegi maanaam ñun doomu aadama yi suñu am am bi dafa mel ni koo li nga xam ne mooy am am yàlla bi taxaw taxawaayu géej ci ñun mu euh, ne bu fekkee njël na suñ kof si ndox su na ko yoreet ci géej kon léegi maanaam na ko jaxase ak yow ndox kon ñun xëy na léegi dootuñu jeexal ndox ah am séddu ko ci moo dem boo jeexalee bokk moom ñu xam lu ah nee na kon yàlla loo am lu ne séddu ko ci kon boo demee ba jeexal rek yàlla ne léegi ñëwal nga bokk ak man li nga xam ne moom laa yor ah, te nee léegi yàlla li yor du jeex